ci mairie bu Bambey xew-xew bu am solo amoon na fi muy waneeg téere goo xam ne nii kenn ci ñi nga xam ne ñoo doon jàng ci al azhar di école yi Serigne Mourtala Mbacke sosoon bind na ko jëmale ko ci mbind ak njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba ki bind téere bi nag mu ngi tudd Serigne Djili Dieng ci teewaayu Serigne Mamor Mbacke ibn Cheikh Moutada mi nga xam ne ni tey moo fi wutu Serigne Mourtala ci liggéey bu am solo bi di al azhar ak mboolem professeur ak ñi nga xam ne ñoo jiite école yi ak élèves yi livre bi nag wane nañ ko. livre bi nag di ko tax a jóg ñu déglu ci ki nga xam ne nii moo ko bind. li ma inspiré mooy li war a inspiré ñëpp rek mooy àdduna bi nga xam ne dafa jaxasoo ñu ciy dund te kenn mënul teg baaraas sa diggante ak doomu aadama parce que mondialisation bi moo tax comme mondialisation dafa am nag ci biir bind kilifa dafa jar ñu jàngataat ko approfondir ko xóotal ko génn ci li nga xam ne dëgg-dëgg moo doonoon yéene ki ko doon bind sinon dinañ jël loole nga xam koo bind te yéen woon loolu jël ko méngale ko ak feneen ko defee nag nit ñi déggee ko noonu dina waral ñu ñu jàpp ne sëñ bi dafa waxee nii wala comme ni ko sëñ sëñ Mamor waxee léegi nii te fekk sëñ bi waxewut noonu donc loolu moo ñu inspiré ñu a xool yi nga xam ne mooy yi nga nekk yi nga xam ne moo nekk nit ñi xam ne moom kat ay waxam li la jublu woon loo xam ne nit du ko mën a weddi ñu teg ko sur le plan scientifique c'est ça ah dañu am ordre de mérite rek la ñu ki nga xam ne moo jiitu woon ci te ma war ci bind moom laa jàppee woon rhétorique léegi loolu weesu na ñu ngi ci yeneen phase parce que Serigne Touba mën a moom géej la dafa yaatu Euh, ni ñu ci xoolee rhétorique yenen yu gëna a rhétorique sama mën naa mi ci looloo tax mané comme rhétorique weesu na moment bi may wax ak yéen maa ci yeneen recherche pour jéem xol lu gëna rar lo loo buñ ko bindé bu soobé yalla nit ñi dinañ ci attirer attention té dina gëna waram dina gëna mëna mën a doctrine bi nga xam mo moo doctrine Cheikh Ahmadou jafé torop comme ni ngeen ko yaakaaree ndax euh, première difficulté bi ñu ci rencontré mooy le fait que nit bindu ton ci li jitu nit bindu ton ci rhétorique Serigne Touba kon yow boy bindu do am référence il nous a fallu ñu jéem xol li nga xam mom lañ jotta am ci as xam-xam wéeru itam ci bind Serigne Touba yi jéemal def benn lenk benn benn benn maanaam daal jéem a lëkkale ñaar yooyu ba xam lan la ñuy jox looloo waral mu jox ñu lii tey ba yàlla def na am ci ndam loo xam ne jàpp naa ne kenn mu sa bind ci doomu aadama euh, maanaam dajale daal la wax yëpp mu daj Serigne Touba rek mooy li nga xam ne waxam yëpp boo ko boolee day daj rhétorique nga xam ne ñetti ñetti fanni balaa yëpp matale na ko liñ ci bind loolu donc loolu moo doon moo tey ji nekk ci bopp Al Azhar gannaaw ba mu rafetloo téere bu am solo bi nga xam ne nii jafe na loolu ñu gis ko ay bindkat di ko bind jëmale ci Serigne Touba Xaadim Rasul rawatina ci mbindinam aw njàngaleem ak ay njàngam tasaare ko ci àdduna rafet lu na loolu jëf ji waaye teewut benn yoon mu soññ yeneen élèves yi nga xam ne ni dañoo toll ci jàng di sàkku xam-xam ñu roy ci ki nga xam ne ni moo génne livre bi fàttewut benn yoon itam wax ci jafe-jafe yi nga xam ne nii nemmeeku nañ ko ci université yi gannaaw bi kenn ci waa njaareem ñàkk bekkanam muy sëriñ Fallou seen waaw loolu li ma ci wax rek la mooy livre bi dañ ko gis rek muy livre boo xam ne dafa raar ci ay boobu wàllu recteur yi mooy loo xam ne ci wax la ci bu ci arab sëñ Tuubaa dafa bind comme sëñ Tuubaa dafa bind ci wàllu boobu nag te bind ci lu am solo te mosuñu gis façon boobu te muy lo, xam dañ ko soxla fi ne parce que tamit lu bari dinañ wax ay waxam di ko nettali te duñ xam la ci biir moo tax nag buñ gisee muy jeune ba pare di bindee noonu moom ñu ñu teewee pour pour encourager ko la barki rek doon suñu règlement intérieur di ci pour ñu xam kuy jàng jàng du lu du du lu neex fokk ko xam-xam la boo ko dee def il faut nga bàyyi xel ci yu bare bul bul jiital sa sa sa sa sa sa xel bul jiital sa bakkan mais day jiital sa xel waaw bu ko defee lu bari mën nga caa bañ àggante voilà loolu boobu jiitalee xel rek jàng ñaareel bu bari dana bari loo xam ne mën nga caa mën